saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Balla Gaye 2 ci xët wu njëkk wa Balla Gaye 2 dafa war a jël revanche wala mu joxe revanche wala mu def règlement de compte ñett yooyee la sunu làmb xëyee ba xam ban la ci Balla Gaye 2 di def bu dee Balla Gaye ak tafaatin revanche lay joxe daanoon na fi tafaatin amateur yi bëgg nañ foofu leer nañ ba xam ndax da koy def ni mu def moo Lo wala déet moom Balla Gaye dafa mel ni bam ca niinee batt la raxasu ba set wecc leneen la ba teg mooy ndax Balla Gaye 2 dana jëli revanche am ca Bombardier ba ko Bombardier daaneeg nii jot na mu dem jëli revanche am beneen ba ndax Balla Gaye 2 daa fas yéene leeral digganteem ak Gris Bordeaux ba mu leer nañ ñooñee la sunu làmb xëyee ba xam la ci Balla Gaye di woon bopp bu dee Boy Niang moom ci digganteem ak Balla Gaye ñeenti adversaire a ci kanamam mooy choisir Tapha Tine Bombardier Bordeaux ba ci Boy Niang ñeenti adversaire yooyu ñoo nekk ci kanamam waaye Balla Gaye 2 moo yor cëggal gu fu ko neex la koy diri bu nu jàllee ca diggante Siteu ak Papa Sow deuxième face février la ko jàpp méga saut de feu ko journal ba tippee ñaari mbëri muy le àjjuma février la ko yóbbu ca arène nationale fas yéene caa boole waale concert gannaaw raayante ba ca hôtel teeru bi dëggi-dëggi face à baa nga war a amee ci arène bu dee diggante Modou Lo ak Ama wax guñu waxi face à face Luc Nicolaï ci ay kàddu xaaj na ñaari xaaj moom raay ba may coordonnateur ay waxam méngoo wut ak waxi Willy Nicolaï raay ba la mu xam le démb ci sunu làmb mooy combat bi mënta taxaw tànk Luc génnul kaso bi Willy bile mu ngay xewee ca capital di raay ko taxawal mooy Sidi Jaxate ñaari mbëri ci nekk am na foo jóge am na foo teg sa bët alaaji gaynde nga nekkoon ci année balance building nekkoon ci ay tolof-tolof li ni moo tax ñaari mbëri ci nekk xam nga fa la combat ba di yóbbu le neuf boobee bu Sidi Jaxate di yëngal ca Thiès Xaadim Samb mu ngay yëngal ci arène moom sunu papa Xaadim Samb diggante Eumeu Junior ak Bour la présenté amateur yi ñu ne déeta observateur yi doon laam-laamee ba ko defam déet moom fils de Zallo def na ko recours bañ doon jortu ne dana ko déposé déposé na ko ca CNG fi mu toll nii mbir maa a saytu ba xam ndax caatu ngewel moo daan wala fils de Zallo ba ca caatu ngewel ak ku yokk bu baax baax alors que au fond dara yokkuwul loolee nag li ko waral mooy doxalin bu bon bi CNG di doxalee ci làmb ji rax ca dolli ne mënumaa nangu ñu copte ay nit dugaleen biir CNG te duñu assisté benn yoon réunion ay nit ñoo xam ne bëgguñu làmb làmb soxalu leen problème u làmb ji mooy tabb gi ñuy tabb membre CNG yi ci politique lan ko lal fa ñuy jeexale mooy ca combat ya taxaw li bi a ngeer bu taay si nga ngel joon na kalmunduur foofee la journal ba xam ne mooy yile combat danañ neex ba lool yile a fës ci yéenekaay bi ñu leen di jox dig daje